asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokkum jullit bi delsiwaat naa ngir ñu fàttalante waat maak yow euh, téereb alquran bi maanaam kaamil bi am na wenn saar wuñ ciy wax suuratul kahfi waaw ndax mokkal nga ko wala sax ndax boo ko ubbi woon ba janoog saar wi danga ko mën a jàng lépp ba mu yegg ñaar yi boo ci man rekk bokkum jullit baax na déglul ma fàttali la xadiisa ngi boo xam ne nu ngi ko jëlee ci abi said alxudri yàlla ko yàlla gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci xadis bi mu ni suuratul kahfi day képp koo xam ne jàng na ko ci bisu aljuma ci bisu aljuma bi nga jàng ci suuratul kahfi nee na yàlla dina la defal ak leer li tàmbalee ci bésu aljuma bii tey bi nga ko jàngee ba aljuma jii di dellu waat lépp ak leer lay doon ci yow ci ak leer ngay dund maanaam sab xol suñu borom da ciy def ak leer ba mu fees dell du bëgg dara lu lëndëm diirub semaine bi yépp du bëggit dara loo xam ne yàlla bëggut ko mbaa yonente ma aleyhi salaatu wassalaam te gis nga ab xol ni mu amee sañ-sañ ci jëfloo cër yi lépp leer lay doon ay ba lépp leer la ci suñu borom di def du bëgg a gis dara lu lëndëm du bëgg a gisit dara lu yàlla bañ mbaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay xalaatam lépp ak leer la ko yàlla di def du xalaat dara lu di xalaat dara lu yàlla bañ mbaa yonentam aleyhi salaatu kon loolu mooy njariñal jàng suuratul kahf fi ci bisu aljumma ba ca ba ba ca gën rëy sax nag muy yiw wi nga xam ni moom alquran da koo am ci lépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni benn xaraf ci alquranul karim maanaam benn lettre ci alquran képp ku ko jàng yàlla bindal ko fukki tuyaaba maanaam bu doon da ngay tàmbalee suratu baqara nga ni alif lam alif bi da nga am fukki tuyaba lam bi da nga am fukki tuyaba mim bi da nga am fukki tuyaba non la ko yonent bi jangale kon yow mi jang suratul kahfi ben lettre bo jàll rek am nga fukki tuyaba yu la borom bindal lan moy bonus bi kon bonus bi moy da ngay am ak leer ci sa mboolem jëm li tàmbale ci ajuma tay bi ba ajuma jii di ci si waat ajuma joo rek ba beneen ajuma ba lépp ci ak leer ngay dund sab xol fees dell ak leer say bët ak say xalaat lépp di ak leer teyit leer googu ci la say jëf yu baax di jaar dem ba ca suñu borom tabaraka wa taala lépp day leer naññ set wecc sa diggante ak sa borom kon bokkum jullit looloy fàttali gi nañu ko bokk bàyyi xel te di màng situation yu mel nii soo amatee nga xani dundu gi lepp ay xewal la suñu borom def ñeel julit ñi ñepp yal nañu yalla boole subhanahu wa taala defal tawfiquk di man di jang alquran sa yu nek tay yal nañu suñu borom bi nangul te dinu defal ak leer ci mboolem suñu jëm ak suñu jëf wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh